jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalatale nag jàmm yéen ñu ñuy topp su suñu seen bi di Leef Dakar 221 kooku di docteur euh, Cheikh euh, Dieng ginnaaw rek euh, ay scandale yu amoon na foofee rek sa ONAS moom rek daanaka mu nekkoon fa pour ñu ne rek daas nas koy convoqué si ay cooy yi nga xamante ne si ne daas nas ko nemmikoon ci diggante ministre bi nga xamante ne si ne moo di Cheikh Tidiane Dièye ñu ne moom jamono ji daas nas koy convoqué lundi rek à 16 rek sa section de recherche moom kooku di Cheikh Dieng nekkoon fa rek ab si ay mbir yi nga xamante ne si rek daan nañ koy nemmeeku rek ay mbir daat am. tax rek yi nga seen rek modi ministre garde des sceaux du Ousmane Diagne xam la rek mbir moomee danañ sa ibay enquête das koy topp rek mbir mi ana nak la démé ak lan moko waral luñ sa mën amit daan ko top rek képp ko xamantene seen rek ya sa def dara dal la top dal lay tek ci yoon ba tax rek am ñu xamné ne nañ dati door ay plante ñu nga xamante seen rek bu ci al Alassane sal ñu ne moom sax daan na won def ay plante rek pour ñu amu ko léral ci li nga xamantene seen mo na ci digënd ñaari seex yoy mi doon Cheikh Tidiane Dieng ak Cheikh Dieng yi nga xamante ne si ne rek ay mbir la foofee sa ONAS ñu fay tuddal ay wàllu loobul xaalis ak ay contrat yoo xamante ne si ne daati na jéggi doyo ba askan wi daat si bëgguk tax na rek moom kooku di Cheikh Dieng na si rek koo si moo di section de recherche nak si rek lundi 16h mu war fa wuyu ju sa mbir moom yi xamante ne si askanu Sénégal jamono ji ña ngay sàkku rek mbir ma daati leer nañ ñi ginnaaw bi ñu wootee jub jubal ak